المدين مرتلا وبالعروة الوثقى التي هي نور بيزرت من ربي لربي موحدا واو للنصارى والبور تمور والكنز والكبريت وداد ليونا هنا بي تنتبينا وسبور كتاب الكريم الكريم المكرم لعبد الكريم للقديم يمير كتاب مجيد من مجيد الممجد لعبد المجيد الله sëriñ bi nee na li tax mu bëgg a defal xar mi ci loxoom neena na bi nga xam ne moom la Seexul Xadiim njëkk a màggal ci bis bi am xar la ci rayon kon màggal gi bernde la nee na xar mi ki ma ko indil nee ko fay nañ ko ci million mu bañ nee na moom sëñ Abdou Samad ni ko kon daal bisub Cheikh Ahmad Bamba bi képp mooy ki ko yeyoo sëriñ bi nee na fas na bu koy rendi nee ngeen bàyyi xel ni murid yi Seexul Xadim yépp la koy rendil nee na mel ni murid bu ne rendi nga xar mii sëriñ bi nee na mi ngi ñaan daal lépp lu ko ci sëriñ bi fay yal na ko bokk ak murid yépp sëriñ bi nee moom nag nee na umpalewuma sunna Seydina Ibrahim nee na dinaa ni ko ñépp di defee nee waane nag su ma amoon menn xar de nee na wóor ni ma su ma su jotee du ma am meneen nee na kon su boobaa dama koy nége màggal rendi ko ci nee na waane nag su ma amee ñaari xar nee ma ca gën nee na ci bitu su maamam bii Cheikhul Khadim la koy nége nee moom si ñàpp samat nee na wóor na ko ne lu mu am maamam Cheikh Ahmad Bamba moo ko ko may nee na teyit bis bii mooy li ko ko may nee te yaakaar na ni moom sëñ Abdou Samad fi mu nekk fi la muridi Seexul Xadim yépp nekk nee na kon sëriñ bi nee na na ñëpp yéene nii nee na ñu bàyyi xel ni kenn ku ne mel na ni sëriñ baa ngi lay wutalum xar di la ko rendil ngay rendi ci bisub Seexul Xadim bi sëriñ Abdou Samad yàlla la fi yàlla yàgg. jërëjëf Mbacke yal na yàlla guddal saw fan yaa xam li nga bëgg yàlla la ko yàlla defal ci barke Cheikhul Khadim ci barke Cheikh Souhaïbou Mbacke sëg bëgg ci yoon wi sëg bëgg ci lislaam sëg bëgg ci jaam yi sëg jëm bëgg ci murit yi yàlla la ko yàlla yeggaleel balay sax ni mu ko waxee ci xaaf mi ah, nee na murit bu ne jàpp ni rendil nga seexul xadim ci bisam bii muy sant yàlla gileem sëriñ sëriñ bi nee na murit yëpp la ci fasaaleen kon nag murit yëpp lañ ko bokk ñaanal yàlla suñu borom fanam wéral ay cëreem yeggale ak yéeneem ci darajay Serigne Bamba yi sëg bëgg Seexul Xadim yàlla la ko yàlla fay nga jëf lu la soog ci sa teewu bakkan yàlla la yàlla musal ci lépp loo ragal ci barke Seexul Xadim yow xëcc leen rek bàyyi ko moom mu yeggale fii allahu akbar للمتين مرتلا وبالعروة الوثقى التي هي نور بي سرت من ربي لربي موحدا